Dakarnet daara du la rëcc ci réew mi. diggante Wally Seck ak Mogates yow loo ci xalaat Mogates gis nañu mu def vidéo di ko gaarawaal ba sax jàpp ni mhm. Wally dafa def sacrifice na ma yàlla baal ci euh, waajuram parce que dañuy sacrifier sa sa sa waajur. Ah, wax yu xaw ëpp yooyu noonu est-ce que jar na ko gis nga Wally Seck. Mhm. waruma sax di sori si ay waxam xam nga lu tax ma sori. Mhm. Wally c'est un frère. te Wally monument la. tey yow soo siiwee lu ne di nga ko dégg. man mi lu ne laa koy dégg man demoon nañ ba may wax na mm-hmm. nga baal ma ci kàddu gi ma wax ko fii mm-hmm. dem nañ ba naan Idrissa Ndiaye góor jigéen la nga baal ma sëriñ Idrissa Ndiaye góor jigéen la mm-hmm. parce que suñ la gisee ngay sol lu rafet nga bëgg sa bopp di yor lu ñu yorul ñu diggal la ñu ñu ñu féete fa bon comprends nga waali Baye Fall la te mu ngi mu ngi dimbali néew ju doole ji te Gambie dafaa tabax ngandum daara di fa joxe ravitaillement di fa def lépp di dimbali ñi nga xam ne ay population Gambie yoo xam dañoo am Gambien yoo xam dañoo am problème wala da leen jàppale hmm. comprends nga tey maanaam par exemple nga ñëw fii Sénégal muy dox si dem si internal di dox wàllu social kon nañ ko bàyyi mu liggéey ku koy yéene lu bon wala ku koy yéene leneen tamit yow yaay sonal sa bopp rek de hmm. moom dem na de hmm. te mu ngi teral ay waajuram sacrifice bi ñu naan dafa sacrifié ay waajuram loolu ils n'ont qu'à arrêter nañ bàyyi seen wax yooyu ñ moo gën na bàyyi wax gi nga moo gën c'est un sénégalais waali c'est un sénégalais ñoom a nekku ci xol bu leer la am kon moom nañ may Wally Seck jàmm moo get mu ngi fi tëgg ay làmb làmb yooyu iskaam na kon il n'a qu'à arrêter làmb la fi tëgg ay làmb ay mbër yoo xam da jox ay lan na arrêté yi muy def na arrêté muy def su mënee yor na xaalis yor na lépp na fay mbër yi yi nga xam ne ñoom la tëggul ñoom la waroon jox combat ñu bëre mu may ma Wally jàmm Wally Seck ñoom ñaar contrat moo leen moo leen lié kon jeex na na ko may jàmm tamit merci beaucoup kontaan nañ loolu looy tëjee waaw alhamdulilah santaat yàlla rek julli si yonent bi di ñaan si réew mi jàmm di wax gars yi nañ seggaat suñu xol yi defaraat toogi ni yéenante jàmm lu sa moroom am te amoo ko ñafeel ba am ko moo gën sa moroom am dara nga ne da ko koy yàqal wala Ouzin am dara nga ne da ko koy yàqal loolu c'est pas la vie kon ñu ngi ñaan fii jàmm di ñaan si waa Dakar Net mhm. di leen ñaanal jàmm di leen wax kontaan naa trop si dalal bi ngeen ma dalal si barke Seydina Mohamed ñun tamit kontaan nañ euh, ça a été un plaisir quand même de vous servir Ousseyn ngeen doon àndal ci seen émission gisee ak ki nga xamante ni Fallou moo nekkoon ci euh, caméra bi assisté par Dev di nuyu le grand coordinateur maa koy ziar bu baax a baax borom demi saison yu baax yi jarul may wax trop <laughs> xam na boppam jaajëf. Dakar Net daara du la rëcc ci réew mi